ñuy dalal tey euh, Cheikh Tidiane Cissé secretaire général baykatu euh, bassin arachide yi ñu lay nuyu di la dalal ci réew mi. waaw ñu ngi lay fay di sant di la gërëm di sant euh, sa invitation bi ñu invité nii tey jii. Mhm, pour waxtaanee mbirum mbay mi. la dalalee mbirum mbay mi comme ni nga ko waxee alxamis gi ñu wees njiitu réew mi doon dalal ndaw yi waxtaan tamit ak ndaw yi ci li jëm ci li di mbay mi ndax yen ñi gis ngeen ci seen bopp ci li ngeen di xaar ci mbay mbay mi fii ci mim réew. waaw euh, yaakaar naa ne déclaration bi am na importance parce que comme nim ko waxee nee na dafay maintenir at euh, soixante milliards yi nga xam ne tey jii moo fi nekkoon daaw pour euh, nga xam ne vraiment ak feebar bi nga xam ne moo xewoon. daaw muy feebaru Covid bi nga xam ne euh, agriculture bi dafa nërmel woon. Mhm. donc euh, mu jël vingt milliards yokkoon ko ci nga xam ne année ba jiitu woon quarante milliards lool woon mu jël vingt milliards yokk ko ci ne dafa bëgg vraiment agriculture bi appuyer économie bi pour mu jóg donc euh, daaw mu nekkoon soixante milliards leen mu ne daf koy maintenir vraiment loolu danañ ci am kontaan lool waaye li problème bi rek mooy. Euh, soixante milliards yi daaw yi. Mhm. bu nekkee ne dafa nar jaar fi mu jaar yi ren yi nar jaar foofu yaakaar naa ne du nekk njëriñ pour baykat yi parce que comme ni ma ko waxee léegi tantôt yaakaar naa ne soixante milliards yi nga xam ne moom lañ génne woon vraiment li mu waroon a jur ci maanaam koom-koom juru te mu nekk werante bu mag a mag a mag fi mu nekk nii. ci monde rural bi euh, waaw loolu lay wax parce que dafa nekk werante parce que problème bi mooy. Euh, ñoom ñi ngi estimer au niveau des maam du ministère muy tutelle bi ñu ngi wax estimer ay un million huit cent mille tonnes mais loolu ñun en tant qu'acteur nga xam ne dégg nga maam ñoo nekk dans le monde rural xam nañ ne loolu munul amul donc euh, dama yaakaar ne euh, comme que dañ ko yokkaloon vingt milliards il faut que mu jël jéem a xool justification boo xam ne dina wane ne vingt milliards yi jur na loolu waaye boo demee ba ci biir da nga xam ne loolu amul parce que vu collectif bi vu difficulté yu nga xam ne dégg nga moom la problème bi am pour ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nga xam ne ñooy jëriñoo gerte mënuñ koy am muy huiliers yi exportation bi demeewul noonu ba pare gerte gi ñorul aussi bu ñu amoon volume bi sax amuñ poids bi yooyu yëpp buñ ko boolante yaakaar naa ne war nañ mën a corriger situation bi tey jii pour mën a dafaat beneen jéego bu nga xam ne soixante milliards bu ñëwee dana mën a nekk njëriñ. Mhm. ci xëyu ndaw yooyu le njiitu réew mi moom nee na dinañu euh, saytuwaat convention état employeur ñu yaatal ko ci mbay mi ak agro business bi su ko defee xëy mi euh, ñu muñ cee génnee lu toll ci quinze mille emplois ndax li ni mel dina yemb. waaw xam nga convention état employeur je pense que ne loolu moom. Euh, mënul nekk ci monde rural bi parce que lii problème bi mooy euh, monde rural euh, secteur informel secteur informel nag Euh, pour nga defar ko convention état employeur mm-hmm. dafay jafe parce que amuñ euh, convention euh, d'entreprise mbala comme ni koy gars yi di waxee convention yooyu existe wu suñ biir li xew daal mooy informel moo am dans le monde rural c'est vrai que si yeneen zone yi nga xam ne mooy zone Potou mbala zone vallée bi mbala Anambé peut-être mm-hmm. yooyu war na fa xaw a gën a xaw a mën a am existence d'autant plus que ne ñun boo xoolee bu noor jote suñu waa zone bi nga xam ne dañ fi jéego muy Saloum di jéego fii di dem ba ci vallée bi da nga maam di surgo surgawu ñu leen di fay dégg ci mbur ñu mën a am euh, weccet boo xam ne ci noor bi danañ ko mën a jëriñoo parce que amuñ benn liggéey mu nekk lu nga xam ne vraiment mu gën lool nag nag wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñooy nekk Dakar dégg nga di mm, deewoo di jënd ay jënd ay di jaay ay euh, yu sew yu nga xam ne vraiment buñ xëyee. ba ngoon mënuñ ci am sax luñ añee mbala luñ kële ñooñu nekk ñu nga xam ne vraiment loolu seen njëriñ lay doon donc yaakaar naa ne loolu mun na nekk njëriñ et non pas état emploi état convention état employeur mais secteur informel la buy dox rek bu nga xam ne peut-être dina yokk koom-koom yi dégg maam nit ñi nga xam ne ñu ngi fay dem mu nekk emploi mais njëriñ lay doon ci ñoom. ndax euh, gannaaw li nga wax ni jàpp nga ne état dëggu na ci li mu bëgg mbay mi euh, doon tey ji bokk ci priorité yi sax laa mën na wax ndax tey autosuffisance alimentaire lay wax euh, moo ngi woon ndaw yi ñu dugg ci agriculture jamono jooju yow nga ñuy xamal ni vallée bi foofu rek lañuy ñuy nemmeeku lii di mbay mi ci diir yenn diwaan yi ñoom dañuy béy benn période. ko defee euh, leneen beneen période bi ñu dem feneen wala ñu def leneen euh, tey ji ndax foog nga ne état dëggu na ci li mu bëgg a jël agriculture euh, def ko bokk ci priorité yi. waaw loolu loolu moom je pense que ne sañu ta bañ la sañu ta bañ la dans la mesure fi nekk nii. Mm-hmm. agriculture rek fi mu nekk nii moom mën a taxawal dégg nga maam réew mu nekk dégg nga pour sa économie mën a dem. Mm-hmm. donc loolu moom lu mënta ñàkk la problème bi kay mooy est-ce que ñoom faisabilité bi nga xam ne moom moo moo ci nekk pour ñu mën koy doxal doxal ba xam ne dina mën a foofu la problème bi nekk léegi nag problème bi mooy man ñun en tant que ñun des organisations paysannes yàgg nañ mm-hmm. koy wax ne état peut-être bu amee sax yéene ba des fois aussi fi muy jaar daf dul baax. Mm-hmm. parce que li si gën a bëri rek mooy dafa am ñu nga xam ne dañuy tëdd rek ba heure ba jot rek da nga ñu ñu ñu ñu ne waraax da nga maam affaire bi. war na ko ci lu nga xam ne danga maam lu jaar ci ñi nga xam ne ñoo ko war a jëriñoo ba nga xam ne ëllëg ak bu ñu demee ba ca fin ba danga maam ñu am li nga xam ne mooy lii am njëriñ pour économie bi mu am li nga xam ne mooy njëriñ pour production bi ba ëllëg si biir bu nga xam ne boo ko delloo réew mi réew mi maam mun fiy jëriñu si économie donc loolu mooy suñ problème ñun mm-hmm. donc dañuy wax ne état fi mu nekk nii na gën a plus regardant parce que loolu nit ñi waxaat nañ ko waxaat nañ ko parce que boo xoolee Cissé am na ci benn période boo nga xam ne wax na ko nee na dafa am ñu nga xam ne dañuy nekk da nga maam dans les cafés di wëndeeloo ko dox ba heure jot rek ñu dem dugg rek daf seen i karang karang daf seen i dugalante ñu jox leen ay affaire ñu dugal ko ci affaire yu nga xam ne demul ci agriculture léegi nag bu ñu ba ci estimation ya ñu xool ne liñ joxe woon loolu moo war a joxe lii dégg nga ñu estimer lu nga xam ne du am de la plupart muy indi coow lu nga xam ne ñii ne man aw ma muy euh, huiliers yi ñii ne exportateurs yi ne ñoom il faut ñu jox leen donc yooyu dafa nekk yoo nga xam ne vraiment man di ma gëm mooy il faut que fi nekk nii ñu gën koy xoolaat. ñu gën koy xoolaat te yow noo jàppee ne noonu lañ ko mën a xoolaate ñu seetal euh, milieu bi wala. il faut ñu setal milieu bi il faut ñu seetal milieu bi ba pare fi mu nekk nii aussi ñun ñi nga xam ne dégg nga am ñun ñooy si zone centre bi aussi ñu jàppale ñu parce que zone euh, zone vallée beeg zone anamba beeg yooyu ñoom ñi ngi am mbay noor ak hmm. mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si zone centre bi il faut que ñun it ñu jàppale ñu si euh, unité de production yi parce que ñun comme que ñuy bay noor. Euh, nawet di nord du moins parce que euh, ndox mi dafa sori ndox mi dafa jafe pour ñu am ko parce que mm. ñu ngi doon wax ne ay forage agricole mais ku ne euh, ngéej ñaan dégg nga maam jox sa jur mu naan foog naa ne doo talagum dégg problème mu problème mu ndox mooy bayee nord donc loolu moo waral dégg nga maam ñun ci zone centre bu ñu bëggee vraiment agriculture bi dox il faut que les unités de production et de transformation parce que président moo doon wax ne bay dundee mais bay dundee dafay fekk ne li ngay li ngay li ngay li ngay li ngay produire après nga mun koy transformer mun mun koy dundee mais produit brut bi noonu rek mënoo koy dundee donc fi ne nekk nii suñu amoon unité de structuration yi nga xam ne day maam dans les localités dafay exister ñu koy structurer lii ñu nal li ci des dégg nga maam ñu ñu ñu toggee ko ceeb wala ñu toggee ko leneen li ci des ñu man koy jaay. Mm-hmm. au moins dina nekk rentabilité ci monde rural bi mais aussi dina nekk loo nga xam ne bay dundee lay doon mais su loolu amul vraiment euh, yenn zone périphérie yi rek moo naam ñi ne nga xam ne comme ñi ma la wax muy zone. Euh, zone vallée beeg yooyu. ñoom mm-hmm. rek ñoo ci bénéficié wu. mais ñun zone centre bi pratiquement dañu am loolu. wax ci campagne arachidière bi moom njiitu réew mi ci euh, ndaje gi mu doy muy faral di dajeek ministre mi rafetlu na campagne euh, deux mille vingt deux mille vingt euh, wax ni jeex na gannaaw nag ay graines yi nga xam ne collecté nañ ko jox nañu tonnage bi sànq muy sept cent vingt et un mille trois cent quatre vingt six tonnes ak lu toll ci deux cent seize milliards ci suñu koppar ki nga xam ne dugal na ko ci monde rural ndax yéen tey. moom mi njiitu réew mi rafetlu campagne bi yéen fa ngeen toll. waaw campagne bi wax dëgg yàlla ñun béykat yi vraiment ñun gis nañ suñu bopp gis nañ suñu bopp dans la mesure où euh, jaay nañ plus de trois cent francs. Hmm. loolu nag li ko waral mooy concurrence bi nga xam ne moom mooy existé waaye tolloon na benn période bu nga xam ne loolu lu ñu ko may rek mooy ñun en tant qu'organisation paysanne dañ gisoon benn lobby bu nga xam ne mu ngi commencé woon na euh, taxaw. ba nga xam ne buñ ko seetaan noon ni ko noon dana gën a euh, nasaxal suñu su su su suñu suñu su suñuy jiba maanaam suñuy koom-koom maanaam suñuy poche parce que période boobu gars yi euh, président dañ ko influencé woon na ko alors Euh, il faut que ñu jàppale mm, Sonacos parce que moom mooy industrie locale bi parce que pour pourvoyeur d'emploi la maanaam luy jël emploi bu bëri la. Mm. mais au finish bi ko xoolee dañ gis ne loolu mënul exister parce que Sonacos ñun dañ gis ne ci ay këyit ne li nga koy jaay daf koy jaayaat chinois yi parce que amul matériel bi ko war dégg nga parce que matériel am yëpp dafa yàqu maanaam ci tubaab dafa vétuste. Hmm. loolu nag moo waral à ce que mu bëggoon a jël. dégg nga maam gerte gi ñu jaay ko ko moyen cher parce que ñun ñu ngi doon ñu ngi doon jëndal ñu ngi doon jëndalee gerte ay trois cent vingt moom mu ñëw ne il faut que mu jënd gerte gi à deux cent quatre vingt cinq pour dégg nga maam ñu jàppale ko pour moom mu siggi mais ñu jàppale ko ci naka moom ñu jaay ko moins cher moom mu dem jaay plus cher loolu mënul exister loolu nag ñun en tant que baykat ñu taxawoon ci reyante ci ba nga xam ne loolu am na ba baykat yi vraiment am si seen rentabilité bu nga xam ne tey jii vraiment gis nañ seen bopp ci biir loolu nag yaakaar naa ne dama euh, ci sama xam-xam mooy ministre bi il faut que dégg nga maam mu gën a wax dégg nga maam li nga xam ne mooy réalité du terrain réalité du terrain parce que euh, euh, président de parce que kontaan na peut-être si euh, collecte bi mais collecte bi ni nga ko estimé ak ni nga ko doxalee je pense que le président xamul réalité bi nga xam ne moo. lan mooy réalité boobu. réalité bi mooy comme li ma wax léegi rek. Hmm. fonds yi am am quantité boobu nag suñ si estimé. kon daal chiffres yi ñu joxe ak li am ci terrain bi dafa wute. dafa wute wute na ci même bu ñu amee volume bi damay wax ne même bu ñu amee volume bi am amuñ poids bi mais aussi problème bi mooy. Euh, amuñ quantité bi le faut parce que bu ñuy wax euh, ay sept cent mille tonnes de collecte en tout et pour tout hmm? dégg nga mu des ay un million et quelque de produits bo nga xam ne dégg nga maam collecté wuñ ko mais produit boobu fan la jëm hmm? léegi nag yooyu mooy waral dégg maam la plus plupart du temps bu ëllëgee si biir bu ñu demaat campagne hivernale duñ mën a dafaat dégg nga maam xayma bi nga xam ne mooy waral ñu préparer campagne hivernale pour ama campagne de commercialisation bu nga xam ne nañ am poids bu mag bu nga xam ne ëllëg ak ñu si war a séddu yëpp mën ciy séddu mhm. mais loolu amul dafay nekk jafe-jafe tax ñuy wax ne réalité bi nañ ko di wax ëllëg ak si biir ñu mën a sukkandiku sukkandiku ci réalité boobu pour ëllëg ak si biir a am lu xam ne dafay nekk un poids normal bu xam ne buñ demee ñëpp ñu si war a jot pour jëriñu si jëriñu si mais su loolu amul tout le temps dafay indi jafe-jafe. 60 milliards yi wax nga ko sànq ndax am ngeen yaakaar ni campagne bi ñu dëgmal dina baax. waaw mun na baax dans la mesure où vraiment cette année ci ñun vraiment bëgg nañ def lu nga xam ne dana nekk une révolution dans le monde rural parce que euh, ñu ngi waroon réunir tey euh, au niveau dégg nga maam de euh, de Kaolack mais finalement dafa am suñu partenaire yoo nga xam ne dañu waroon a jógee Dakar. Hmm. mais comme que grève Euh, carburant bi dafa exister hmm. seen oto mu mënuñu am essence bu leen indi <laughs> mais nañ fas yéene concerté wu ba nga xam ne ren moom dañuy taxaw pour semence yi ba nga xam ne ëllëg si biir fépp nga xam ne semence nekk mën na fa dañ fa dem taxaw xool li exister hmm. su nekkee des semences de mauvaise graine danañ ko dénoncer te danañ ko retirer da nga maam dans euh, les localité donc loolu ñu ngi koy yëgal nga ñi nga xam ne da nga maam mooy euh, la tutelle danañ ko wax ne ko ren moom mayuñ kenn dégg nga maam muy mbuuj njaaj li ñuy wax dégg nga problème mu euh, semence. xanaa loolu mooy waral tournée gi ngeen gi nga xam ne sànq. waaw ñu ngi daan daal tournée tournée bi mooy loolu mooy euh, suñ dajee ñun tey jii dañ fas yéene waxtaan parce que tey lañ ko naroon def. Hmm. mais au finish suñ gars yi dañu bëri ñu nga xam ne dañu waroon a jeexoo Dakar te finalement amuñ. essence bu leen indi. Mm. loolu mooy indi à ce que dégg nga maam ñu ñu ñu ñu ñu toxal ko peut-être ba samedi bi di ñëw mais buñ fa àggee dinañ def de sorte que vraiment euh, les opérateurs véreux yu nga xam ne ñoom tout le temps dañuy taxaw rek rien que pour. Euh, lor askan wi parce que seen bénéfice seen seen seen seen jiba rek moo leen intéressé bu boobaa ñun dinañ taxaw seen kaw dangay ma marqué leen à la culotte ba nga xam ne képp ku nga xam ne tey jii euh, euh, wax nañ leen yóbbul jiw barab sàngam danga fa boo fa yóbboo jiw ñu dañ fa taxaw xool ko bu nekkee ne lu normal dañ ko wax bu nekkee ne diw ba baaxul dinañ ko wax ba xam ne ëllëg ak si biir lépp lu nga xam ne joxe nañ ko mu nekk rentabilité buñ ko jiyee mais su dul loolu dañu ñu jox semence yoo xam ne d'abord du baax boo ko jiyee doo am ma du nekk semence certifiée te loolu mooy gën a indi à ce que da nga am estimation yi ñuy wax tout le muy nekk weerante di am problème. tey coow li bëri na ci mbay mi euh, bu dul semence yi euh, ñu wax ci euh, lii di campagne yeeg yeneen ak yeneen ak manque de communication gi nga fi wax léegi joxe chiffre yu normal yi tey jii lan nga far lan nga jàpp ne buñ ko defee saafara dinañ dina am ci li nga xam ne moom mooy mbay mi. waaw xam nga problème bi mooy vote ak yëgoo problème bi yëpp. man je pense que ne c'est au niveau de la du ministère de l'agriculture parce que man mënuñ comprendre ministre bi ça fait deux ans fi mu nekk nii jour pour jour mu ngi au à la tête du ministère mais musuma gis ministre bi boog man à mon niveau fu mu convoquer les acteurs or son prédécesseur chaque mois amoon dafa amoon comité de suivi bu nga xam ne da am ku ñuy wax Aliou Dia moo ko jiite woon muy honorable député Aliou Dia mm. peut-être sax am na ci yoo nga dégg nga maam di ñuy def chaque mois au moins nit ñi réunir benn benn benn benn benn fan ci mois bi wax dégg nga maam les problèmes mais kii dafa musul dajale le monde rural benn yoon la ko def mooy bi muy jël prise de fonction président wu ko lool président wu ko woon secrétaire général am la ko joxoon loolu nag dégg nga maam munul tax dégg nga maam nga doxal li nga xam ne moom moo war a dox parce que boo xamul fi nga jëm wala nga xam fi nga xam ne léegi maam foofu la problème yi nekk nga bugg koy doxal du dem parce que il faut ngay toog di concerté wu di wax te président la moo leen di wax ne leen ne leen ci dégg nga maam bi askan ngeen xam seen soxla pour mën koy faj. Mm-hmm. mais suñ xamul problème yi di tamax tamax yi di tamax tamax yi di dugg ci lu nga xam ne duñ ci war a dugg mbala di def lu nga xam ne duñ ko xam mais ëllëg mooy indi problème yi je pense que ne il faut que nit ñi ñuy toog parce que Sénégal bi ñëpp ñëpp ñoo ko moom. il faut ñu toog di waxtaan lii problème ñu laal ci duut ci baaraam problème la mais sénégalais li ñu gën bañ mooy nga ne lii problème la mu ne da nga fekk ne loolu les gens veulent dañ bëgg a donc loolu mooy situation bi il faut que mu ubbi ay buntam di oo nit ñi ñuy toog di waxtaan lépp luy problème ñoo xam problème bi nii la tëddee ñu jéem a seet luy ko saafara. Cheikh si Cissé ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup.